mbokk internet yu Mediaset ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lu seen ànd ak ñun yéenekaay yekkal la ca gën a fës dogal yu njiitu réew mi jël ngir xeex jàngoroy coronavirus beeg ni muy lawee la ëpp si yéenekaay yi xëyee tey laa teew bin si xëtam bu njëkk moo ngi ci fësal ni coronavirus bi mooy buum di buum mi ci réew mi ndax moo waral ba njiitu réew mi jël ay dogal tëj école yi si diiru ko ñaar fukk fan ak benn tere lépp luy dajale ak mbooloo fii ak fanweeri fan dàq xew-xewu diine yi waroon a am si ci réew mi yokk surveillance bi ci aéroport yi looloo waral ba yéenekaay bi di grand place di ñu xibaar ni Macky Sall jël na juróomi dogal ngir jàmmaarloo Covid 19 bi te xeex boobu daa mel ni réew mi yépp ànd nañu ci ak njiitu réew mi ndax bu ñu sukkandikoo ci quotidien national bi di Le Soleil askanu Sénégal booloo nañu ci ginnaaw Macky Sall ngir jëlee fi jàngoro ji ndax fekk ci nañu ko ci dogal yooyu ba tax journal bi di Le Quotidien di ñu xamal ni askanu lémm ñoo taxaw ngir jàmmarloog coronavirus bi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi Sénégal yépp a maase ni waaw gannaaw bi njiitu réew mi jëlee dogal ngir jële fi feebar boobee ndax bu ñu sukkandikoo ci laas yéenekaay jamono ji Sénégal moo ngi ci ñaar fukk ak ñeenti kaa gannaaw bi ñaar wëree ci ñaar fukk ak juróom benn ya ñu amoon ñaar ci ñoom démb lañu leen nemmeeku kenn ki di ab moodu moodu bu jóge ca réew mi Espagne ak beneen xale bu góor bu am fukki at ak juróom feebar bi di wéy di bi moo waral ba kilifa diine yi ak kilifa aada yi ci réew mi di jàppale Macky Sall ci dogal yooyu ba tax Sud Quotidien duñu ci xibaar ni lu ñeel xew-xewu diine yi ziar général bu waroon a ama ca Tivaouane dàq ba woon ca Médina Gounass ak appel bu Seydina Limaamu Laay ba dàq nañu leen màggalu ko Kazu Rajab na kenn dàqu ko waaye xalif général des Mourides sàkku na ngir ku ci nekk màggalee ko sa kër ngir wattandiku dajaloo ga yéenekaay bii di Les moo ngi ñuy xamal ni ba tey waa opposition bi it li du mel lanu def ndax kii di Idrissa Seck Abdoul Mbaye Mamadou Diop Decroix Ousmane Sonko ak kii di Pape Diop ànd nañu ci dogal yooyu njiitu réew mi jël l'évidence yéenekaay di ñu jukkil ay kàddu ko Pape Diop di njiital bokk gis-gis moom mi nag li mu gis mooy askanu senegal yépp a war a nekk ay soldat taxaw temm sàmm sunu réew ba feebar bi di Covid-19 daal di fiy jóg jóge gannaaw kilifa diine yeeg euh, opposition bi jëwrin bi yor wàll kuy yoon wuyu na wooteef njiitu réew mi ndax bu ñu sukkandikoo si la tribune yéenekaay maître Malick Sall dàq na bépp audience bu waroon a am si jamono ji démb si janoom ak taskatu xibaar yi jëwrin bi yor wàll ko wér gi yaram di Abdoulaye Diouf saar bu ñu sukkandikoo si la soleil yéenekaay moo ngi araftu ñiy joxe ay xibaar yu wérul ci feebar bi te nee sax dinañu leen yóbbu si yoon l'observateur di ko dëggal ndax ci biir yéenekaay ba Abdoulaye Diouf Sarr moo ngi ñu fay xamal ni jël nañu ndogala ngir taxawala benn armée du net ngir jàmmarloo ak ñi nekk ci internet bi tey wax lu nekkul ci feebar bi li ci yéenekaay yi dañu koy jeexal ak wàllu ko tàggat yaram tribune sport fësal ni sport bi ci boppam moo feebar ndax coronavirus bi tax nañu daq jongante yépp yi waroon a am ci àdduna bi làmb ji tamit jël na ndogal pour diggante Siteu ak Papa Sow ba yeneen ni jëmmi jamono fi la ñuy ndar keppee li si yéenekaay yi ñu jox leen dig daje ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf